fi ma jaaragu moom ku fa jaaraka la booleel fa di ko waxi ay sama xarit baa ngi ndaanaan a ngi boo ma gisul toog di ma yàq te boo ma gisee reetaan nga foog ni duniya ni la mel mi nekkoo waat kontaan nañu trop parce que xalaatuñu woon ni que dinañ gagné may révélation de l'année parce que ni fi fekkal moom ñoom tamit ay ndaanaan lañ comme ñun franchement ñuy kontaan bu baax on a même pas les si xalaatoon nañ ko nag biñ koy def xam clip bi dafa soof dafa ñàkk xolam moo tax dafay neex sénégalais yi loolu moo tax. bien sûr ñoo ngi pare yeneen ak yeneen incha allah di leen wax ngeen xaar ñu fu sori tamit ak waa Icon ak yeneen i projet incha allah. moo jaaf si combat bi wax dëgg ne fa yàlla ba mu génnee moom lañ gis moom moo ko tas mën nañu wax loolu noonu ñoo koy remercier bu baax voilà voilà. Mhm. ñu ngi koy remercier bu baax di ko wax aussi na na jàpp rek te ba bàyyi incha allah non wax dëgg na fa yàlla moom tiituñu parce que wóolu nañ suñu bopp te wóolu nañ ñi nga xamante ne ni aussi ñoo nekk suñu ginnaaw bu baax moo tax tiituñu ah. Thiès Tivaouane. bien <laughs> bien sûr. yii bi moom kii nañ ko ba yaay fi ma jaar ak yow ku kala yàlla booleel fotolu di ko ay sama xarit baa ngi nda naa fi ma jaar ak moom ku fa jaar kala yàlla booleel fotolu di ko ay sama xarit baa ngi nda naa na boo ma gisul toog di ma yàq te boo ma gisee reetaan nga foog ni duniya ni la mel mi nekk ko waat man mi de xam naa ki ma doon ndax ma ngi sant yàlla aw ma sax jotu di la jëw xam nga ni man may waaja boo ma gisul toog di ma yàq te boo ma gisee reetaan nga foog ni duniyaa ni la mel yow mi ni waaja waaw ñi ngi remercier ñëpp di sant ñëpp di sant aussi waa Sénégal parce que gis nañ clip bi bi mu génnee liggéey bu rafet bi ngeen si def parce que loolu day montrer que ni yéen askan bi ngeen fi nekkal xam nga xoolu leen koo xamante si nii moom lañ xam ak moom lañ xamul parce que bi ngeen di partager suñu son kenn xamuñu woon mën nañ ni kenn xamuñu woon am na ñu bari ci seen site lañ ko gisee dem xool ko apprécier kon donc ñu ngi leen di remercier si loolu noonu bu baax wax ni aussi raaya bi tamit kontaan nañ si trop parce que première fois nga def sa single ah, gi def ko clip mu daal di génn am benn récompense bi nii c'est pas du tout facile donc dañ ciy sant yàlla bu baax di si di si sukkandiku di gën a liggéey parce que tamit euh, loo gis si àdduna rek liggéey moo koy maye kon donc dinañ gën a liggéey bu baax di wax gars yi nañ xaar Akon si yeneen vibes en ah, si yeneen projet incha ñu ñëw avec du lourd yëngal Sénégal incha allah. <laughs>